tey ji nga nekk maman am njaboot itam wala nga am rakk boo xamante ne tey ji mës na am doom euh, est-ce que mës nga dund maltraitance wala wala négligence ci hôpital euh, waaw mës naa kaa dund bi may accoucher sama sama deuxième doom bi euh, dund naa ko benn hôpital ci banlieue bi waaw boobu tamit doonu la rek du souffrir de douleur ma oo sage-femme bi ne ko ñëwal dimbale ma maa ngi bëgg a dee fi ma nekk dafa bëree yoo ak yooyu mu ne ma bi nga koy def dafa neexoon bul toog ba heure bi di fi yuuxu il a fallu ma nekk foofu di jooy di yuuxu di yuuxu ba sama grande sœur par chance moo de jóge suñu kër dellu si waat jotuma egg sax salle d'accouchement fi ma tëdd ci la egg si rek mu oo médecin bi ñu fekk ma justement nga accouché ci biir kii bi ci biir ci hôpital bi. parce que yàgg nañu am genre cas yooyu ay affaire de négligence maanaam suñu hôpitaux yi ñoom problème mu accueil nit gis la ngay soox yow kese mu ñëw jàppale la. ànd ceeg fierté ànd ceeg amour ci lu muy def ñëw womat la wax la fi nga war a jaar jël la en charge loolu dafa tumurank ci suñu hôpitaux yi ça ne pas dire que nag li am Louga day jël ñëpp ñoo xamante ne ci personnel soignant bi la ñu mettre leen dans le même sac parce que lu waay gàtt dégg-dégg gis na liggéey bu am solo bi personnel soignant bi def bu fi mbas bi dugg see te loolu war waruñu ko fàtte am na ci ñoo xamante ni ñu ngi def seen travail comme ni mu waree am na ci ñoo xamante ni mérito nañu seen salaire waaye am na ñoo xamante ni ay bërëb galeuse lañ. am xol bu naqare bu metti bu regrettable bu metti bu ñaaw lu ñu def parce que nit kuy souffrir ba dem ak doom dafa metti dafa ñaaw su ma ko dee wax sa sama xol bi dafay tàng ndax vraiment metti na torop metti na torop di ko ñaanal yan na ko yàlla yërëm ñu ñaan yàlla ñu xoolaat suñu service médical bi. nañu xoolaat ñi nekk ci médical yi ñi nga xam ne ñooy sage-femme nañ leen xoolaat parce que nit ñi boo ñëwee hôpital am na noo lay accueillir mais nit du souffrir ba dem ba sedd bi ñaaw na métti na en tant que jigéen. souvent yu bëree bëri dañuy tuumal que ça soit agent de santé wala infirmier yi wala nangam sangam mais la responsabilité c'est l'État État moo joxul gaay jumtuwaay yu war. parce que tey souvent da ngay dégg ñu ne jigéen ju wérul ñëw na ci benn maternité bu fa ñëwee garab yi mu fa war a fekk sax ko fa fekk wala jigéen ju wérul ñëw na hôpital. bu ñëwul bu jëndul ticket sax gars yi duñ ko duñ ko faj yaa ngi comprendre duñ ko faj duñ ko soigner duñ ko defal ay ay ay soins qu'il te faut parce que état du Sénégal moo waroon subventionné lu bëree état du Sénégal moo waroon subventionné les hôpitaux nga xam ne gars bu ñëwee hôpital da di permettre ñoom ñu faj leen ñu defal leen les premiers soins souvent loolu mooy manquement yi des fois gars di accuser aussi hôpital bi di la jël en soin loolu moom moo nekk ci hôpitaux yi foog population bi comprendre loolu. mais da ngay comprendre que ni dañ leen dañ leen a sàggane te loolu noonu dafa bari fii nii Sénégal en dangay da ñëw ñu war la accueillir yiir bu normal mais dañ lay dañ lay dañ lay dañ néewal doole comme si doo nit. te la plus man li ma ci jaaxal mooy say moroomu jigéen ñoo la koy def man loolu dafa ma daf ma jaaxal en tant que jigéen ngay ngay accoucher mais di di accoucher comme moom di am doom comme moom. ah di jànkonte yenn problème yi comme sa moroomu jigéen nga koy taxawoo nee nii loolu dafa ñaaw dafa ñaaw foo ko mën a yéggale ëpp na fa quoi. il faut que état bi mu jóg ci ñu xool ñan la ñuy yóbbu pour ñu ñuy assister ñun ñu di accoucher ndaxte góoma ni ko sa moroomu jigéen ngay jur mii jur nga xam lu ci métit ak lu ci mattu nga kay seetaan ba yenn di ko dal sa franchement man. Euh, doy na waar daal doy na waar. doy na waar ndax boo dégloo ñenn jigéen ñi dañuy wax ne daal euh, euh, hôpitaux yi boo fa demee fekk fa sage-femme dañuy mel ni ñuy nekk di former ay éléments Bango ndax au lieu que ñu accueillir la ci nu mu war a demee comme ni ko waxee sànq dañuy nekk rek di la wax ay kàddu yoo xamante ne tegginewul benn yoon. loolu la loolu la moom il faut fu mu ne nii daal état bi daal foog mu jël ci matukaayam yu mat sëkk ñu xool ñii di nekk ci école yi ndaw yi yëpp di def formation santé xam yan façon nit lañ fee yóbbu. ndaxte mënoo gis nit koo xamante ne ku jurul daal mënoo yërëm nit loolu laa mën a wax daal ku jurul daal jaaroo ci maternité mënoo xam lan moo ci nekk ci accouchement ak lu nekk ci matu. defuñu seen travail de manière sérieuse donc ñooñu je pense que nguur gi su ñuy wax nguur gi mooy état du Sénégal dafa war a jël ay daan teg ko ci seeni kaw ba bu ëllëgee keneen bu am benn doxalin bu mel noonu parce que lu ñu def kenn santu leen ko te àndu sa àndu ak seen liggéey. donc ñun loolu rek la ñu mën a wax parce que amuñu benn pouvoir pour wañ seen loxo pour ne leen da ngeen def seen liggéey comme lu mu waree ñi leen embauché muy état du Sénégal ñoom ñoo war a jël seen i responsabilité bu mu mat sëkk ku ci def loo ci war a def yoon dal sa kaw ñu teg la yoon ñu teg la ci yoon su ko defee su ñu amee benn ñaar ñett ñu ñu teg ci yoon ñeneen dinañ moytandiku def la ñooñu def pour bañ ñu teg leen ci yoon. vraiment ñu ñu ñu jàpp ci xoolaat ñi ñi recruter parce que médecine comme sama mbokk yi nii wax naan dafa am ñoo xam ne mérité tewuñ ko mérité wuñ liggéey ci médecine mooy lii rek lii mooy ñaaw na trop bëgguma ci di wax sax ba ci sori ndax xool bu tàng ba bu jeex daal nañ xoolaat si ñi recruter daal. non bu nekkee ne bu nekkee ne femme bi. ah euh, li ñu waxee bu nekkee ne femme bi négligence moo ko rey par exemple négligence seen négligence ay sanction mun na ko fekk mais bu nekkee aussi du ay négligence benn sanction mu ni ko fekk parce que aussi sage-femme bi bu muy liggéey wala médecin bi aussi wala infirmier bi mais jógul pour rey nit amul benn sanction bu ko ci mën a fekk ça dépend aussi ci enquête bi bu ñu xam ne ndax ci sage-femme bi la décès bi jóge wala ci médecin bi la ndax wala ndaw si bu muy yow dafa feebar yaa la mais am na loo xamante ne c'est pas que chirurgien bi day opérer nit nit dee rek ñu sanctionné ko wala euh, jigéen day am doom wasin décédé rek ñu sanctionné sage-femme bi ñaata nit ñooy dee fekk du sage-femme bi moo leen rey parce que yàlla moom bu ñëwee kenn mënu ci dara kon donc population bi aussi bu ñu topp émotionnel souvent hôpitaux yi dañu am problème de moyens hôpitaux yi doxul poste de santé yi doxul moyens yi nga xamante ne barke démb yaa ngi gis hôpital bu mel ni Kolda ñu ne amul scanner dañ comprendre loolu moo tax et c'est dangereux quoi en fait. man ni que. moyenne bi dafa dafa manqué déjà euh, bi ma dégloo am na keneen ko wax ni am na am na am na ku ma dégg mu ne que Cheikh Sarr la nee na yaayam fa la gaañoo euh, ma ma euh, jëkkëru magam fa la gaañoo benn frère am xaw ma sœur tamit fa la gaañoo liñ leen teg lañ àttanul seen environnement bi ñoom ñëpp ku am urgence fa lay dem te seeni i matériel matul mais état bi il mu xoolaat tamit. il faut ñu defaral nit ñi li ñu soxla li ñu soxla du ay teer ak ay kii dañu soxla ay ay ay ay ay centre de santé ay hôpitaux ay ay éducation bi ñu toppatoo ko. nit ñi dañoo feebar dañoo war a faju. dañu feebar dañu war a faju mais c'est grave affaire bi ni mu ni mu toll ak problème bi fu mu toll foo ko tollu gravité bi foo ko toll ëpp na fa a quoi. opération lu ci gën a bëri balaa ñu lay opérer dañu lay defar rendez-vous balaa ñu lay opérer par rendez-vous la gisoo benn am na opération yoo xamante ne urgence la bokkul. mais am opération yoo xamante ne aussi si rendez-vous lay doon ça dépend même opération yu bëree bëri ngeen di gis am na yoo ne par rendez-vous la am na yoo xamante ne la loolu médecin yi nga xamante ne médecin chirurgien yi xam nañ ko ñoom ñooy joxe gars yi ay ay rendez xam nañ mais souvent aussi population bi dañu comprendre li xew parce que décès bu amee rek côté émotionnel la ñuy gën a topp ba fàtte li nga xamante ni xew na mais amul benn agent de santé wala sage-femme wala infirmier wala médecin bu bëgg ni décédé ni dee man je dans dans la santé étant un personnel de santé xam naa baax li may wax may liggéey aussi ci hôpitaux kon xam naa li xew yaa ngi comprendre kon tey amul kenn benn agent de santé bu def formation bu a rey nit mais souvent aussi na gars yi xool lan moo ci nekk est-ce que bi bu muy ñëw indiwul feebar wala indi pathologie wala amul leneen ak leneen li ko dal pour gaay yi mën a comprendre. Euh, njuuj njaaj mi bari na ci dëkk bi ay ay euh, dañ lay jox euh, permis par exemple dangay am permis doo mën dawal dëkk bi liñ fi war a defaraat ci boppam moo bari.